alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. abonné leen ci seen chen malben bu leen fàtte bës bi ngir ngeen mëna am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi. الله الله الله يا الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله Sous l'égide de Cheikh Mohamed El Mahi Niass, Khalif général de la Faïda Tijaniyya, qu'Allah l'assiste dans sa mission, en collaboration avec les éditions Sirius, Docteur Mehdi vous présente la sortie officielle de l'essai Fin des illusions et merveilles de la Faïda Tijaniyya.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

bu ne daanaka tey bu àgg nag bu fajar jotee dina julli si jël mbalaan mi sàngoo waaye bu sëlmalee rek mu génn dal di dem dal di bu ñu sëlmalee seet loolu ne ko saalawata waaye bu njëkk naa fekk yi ngay def nag mu ne ko lan mu ne ko boo rek jóg mu ne ko li xew yonent bi mooy ne man damaa ñàkk ñàkk ba nga xam ne maag sama jabar mel ni mbalaan lañ am bu waxtu julli jotee maanaam mbooloo ñëw julli si gaaw yóbbu ko moom tamit ndax mu mën a julli balaa waxtu wee génn loolu moo tax rek yonent ñaanal ma ma am alal yonent ne ko ay eh, ne ko saala ba tar danga mu ci li la yàlla jox nga doyloo ko su ko defee mën a sant li la yàlla jox mu ne ko yonent ñaanal ma ma am alal rek mu ne ko saala ba tar mu yël ci li la yàlla may am lu tuuti man ko sant yàlla mooy am lu bëri loo xam ne daf day indi coono rek dina ko yóbbu ci bi ma amal rek dali koy ñaanal rek ala jidal bi walla walla walla ci kaw dafa xam ne jur yeeg nag yeeg gàtt yeeg giléem bëri bëri ba nga xam ne mi dina gën dëkkoon xajatu fa dafa mujj génn ak ay gàttam bi gàtt yi bëree dina koo xam ne juróomi juróomi waxtu yëpp ci jumaa ji la ko daan jullee waaye gannaaw bi ñu gis ne mën na te julli juróomi waxtu yëpp ci jumaa ji dana julli si suba dana julli si takkusaan waaye bu jeexee rek jeex na gannaaw bi mu dem ba nga xam ne loolu sax mën na ko mën na te julli si mën na te julli lu muy benn waxtu rek dana jël julli si muy takkusaan bu takkusaan bi dara muy julli si bu jeexee jeex na gannaaw bi alal ji di yokk na mu toxu alal ji di yokk na mu toxu ba nga xam ne mënut te ñëw mënu ko dañu ci àjjuma a am a ñëw a ko dogu naan ko naka yonent naka mbokk ma benn bés mu ne waaw ana saada ba ñu ne ko saala ba te day alal ji bëri naa bëri bëri xam ne mu nga dem ci àll ba foofu la nekk ay gàttam rek yonent ne way la saala ba te way la ay toroxtaan nan laaxa yàlla boo xam ne joxante nag yàlla kóllëre day naa tànnaa walaay nag jox na mu jox na mu ma min fadli na ko te ak kon te danañu nekk bi ne saa dana de moo loolu la loolu la xool bu ko yàlla mayee alal dana ci génne asaka te dina nekk ci ñi ñoo xam ne ñu ngi jub la de vraiment aataahum ba mu joxee leen julli ma ahmadou kare min fadlitin fihi wongo moom yàlla baxi nuñu nay bii ci moom wata wala ñu dëdd ko ni sopp yàlla waxum ko yow moo la mooy dindi lañu leen ba àqaba ma mu yël mu mu yël leen yàlla ci xol seen ni faaka nag naa xel yàlla daal dugal ci seen xol yi nag ak naa fekk boo xam ne naa fekk bu sax la ci seen xol yi rek fépp lu mu ci xol seen i la yow mi yow ko na ko bés bu dañu ko seeg yàlla rek ba mu ko defee yàlla dana la bind ci seen xol yi nag ak naafeq boo xam ne ba ba ñu deseeg yàlla naafeq bu mu yóbbu dënn loolu day yëfi ci ñoom loolu yàlla wax moo tax yonent ne na ñu jël asakam ndax yàlla wax na ne naafeq la naafeq boo xam ne loolu dafay sax ci xolam ne ba mu deseeg yàlla mu ne loolu tax jëful asakam lima am la fu ca sa ca julli bu tee laa loolu la moo gën a wér xam ji fàttali la de te yàlla itam ku xam li nga xam nim nim teewee ci ñun nii ñu xamee ko nii yàlla itam ñun la ko xamee ba pare xam na li xam ne fàttali ci ñun ñun xamuñ ko de yàlla xam ne lépp ñun suñu xam-xam yëpp xam-xam yi ji ñu toll rek la buñ ko génnee rek xamatuñ dara te nekk ñun ñëpp ñun ci mbaar mi la xew ci suñ ko ya xamuñ ko la xew ca Eh, fu ma fu mënti nekk sa kër gii la gën a jege la fa kaw xamoo ko seen eh, gannaaw tànt bi sax li fi kaw xamoo de waaye yàlla nag moom moo ko xam ne xam na lu xam na lu teew xam na lu baax na alladina yaay alladina yamiluna mutawwi'ina fi sadaqaati kooku ko wasal wàcc na mbooloo ci ay màngaan yaram yi kaw kaw yaram yi màngaan yi ñu way soo way soo amul dara ñàkk ñàkk ñàkk ñàkk ba nga xam ne seen mbubb yi soo dafay xesew boo leen séenee rek siitlu leen ñu ñëw si yonent ne ko yonent dañoo bëgg ndimbal yonent dal di oote saxaaba yi ne nañ génnee ndimbal ci nit ñi de saxaaba yi yëpp dal di njëkkalante nag génne alal Abdurahmaan ibn Awf mu ne boobu amoon na juróom-ñetti téeméer juróom-ñetti téeméeri dollar mu ne ma dem xaaj ko ci digg bi juróom-ñetti ñeenti téeméer ma dem jox ko yonent bi ne ko lii saraxee naa ko yàlla ñeenti téeméer yi bàyyi naa ko ca kër gam mu dundal njaboot gi de ba mu ko defee Omar itam ne yonentu oote na oote joxe alal am naa juróom-ñetti téeméeri dollar Babacar Sadiq waxtu wul waxtu wul amaan rek mu mu mu mu raw ma waaye bi du ma raw de. am naa ñetti téeméer juróom-ñetti téeméeri dollar xaaj naa ko ci digg bi ñeenti téeméer yi dem jox ko yónent ne ko yónent juróom-ñetti téeméeri dollar laa am ñeenti téeméer yaa ngi nii joxe lebal naa ko yàlla ñeenti téeméer bi nag bàyyi naa ko ca kër ga ngir njaboot ge mu ne noonu rek baaw ko dal di agsi ne yónent sama alal yëpp yëpp yëpp jox naa ko yàlla rek mu ne ko ah, loo bàyyi sa njaboot ko mu ne ko bàyyi naa leen yàlla ak yónentam ko Eh, eh, bàyyi na ko yàlla ak yonentam de dal ne dal ne moom amul loo xam ne daf koy ñaxtu yàlla ba di ko lebal moom lebalul yàlla yàllaa ko yàllaa ko war a ñaxtu yàllaa ko lebal a fay yàlla de sa alal yaa ko moom ngay lebal rek di ko di ko dénk yàlla de bu ko defee yàlla dina la ko fay ëllëg ëllëg ba nga xam ne waxtu wax ca la ca la ca la xalal ah, di amee njëriñ yëpp ba mu nag saxaaba yëpp di génn di joxe di joxe rek di joxe rek di joxe rek naa fekkee dal ne cem ñii ñoo mën a ngistal rek dañuy ngistal rek dañuy def dara du dara dara du ci dëgg ci ñoom dañuy wax rek fekk seen naali yu jamono boobu miskin la amul dara mu dali dem ci benn tool di fa baara njiriw di fa liggéey di fa liggéey di fa liggéey di fa liggéey ba bër set ñu fay ko ñeenti téeméeri ñeenti ñeenti ñeenti riyaal mu daal di ñëw ñeenti riyaal yooyu yëpp mu ñëw joxe ko yorante ñu ne xoolal kii te na miskin mi yàlla lu mu soxlaa li maam lu tuuti lii naa fekk kenn mën te ñoom de boo defee ñu ne da ngay ngistal boo defee ñu ne yow miskin yi xaraam bi loo am bay saraxe toppal fële ba mu ko defee nag ñoom la yàlla di tontu mu ne lësiina ñaaña yel misuuna danañu xay yibal almutawiina way fat way fat ña way waykat yi ña bi leen moom ñu ne si way gëm ña ci sadaxaat ci gën a sadaxaat ci ci te sadaxee rek wala ñu ne ak ñaañi laa yee ñu duna xamuñu illaa jundahum dara kenn kattan seen de comme Seydina Ali ibn Abi Talib borom alal yëpp joxe na moom amul mu dem baala njëre wuji ba bës set mu ñëw am te yént yénti doaral yi dal di koy joxe de ñooñu na fekk yi ñoom dañuy ayibal di leen suufantel di leen sobental naan ay naafeq lañ naan dañuy ngistal dañuy def dara du ci dëgg yàlla moo tax yàlla tontu leen ne nag ñooñu ngeen di wax noonu fa yasxaruuna ngeen di reetaan minhum ci ñoom ngeen leen di reetaan ñu yéjji leen saxira allahu fay seen reetaan ci ñoom minhum ci ñoom de ñoom ña reetaan jullit ñi waaye yàlla fay leen seen reetaan bi ñoom tamit da këpp na ci seen wala moom war na ci ñoom azabum mbugal alim mu daa ji métti ñooñu ëllëg seen pay ci àllaaxira mooy mbugal mu métti moo xam ne danañ ko ko danañ ko ko defee nag yonent sallallahu alayhi wa sallam ak naa fekki ne yàlla nag wax ak ci naa fekki ne ne ko ma borom jikko yooyu nga xam ñooñu nag istaxfir jéggalul lahum yaa leen aw laa tastaxfir iki jéggal ku la lahum yaa leen de bu la neexee nga balul leen bu la neexee nga bañ leen a balul man yàlla du ma leen de in tastaxfir ndéem jéggal mu lahum yaa leen sabiina maratan juróom ñaar fukki yoon wala ñaar fukki yoon laa jéggal ci yàlla lahum yaa leen bu ko defee nag yoonu bi dal di wax mu ne man yàlla daf maa tànn lool daf ne ah, tastagfir lahu aw a tastagfir lahu bon nag man tànn naa ne dinaa leen ñaanal dinaa leen jégalul yàlla juróom-ñaar fukki yoon juróom-ñaar fukki yoon yi nag koy daf koy waxee noonu rek ci waxi yaaram boo waxee juróom-ñaar fukk maanaam li a bëri ci maanaam bi indi nga adat bu mat sëkk sëkk sëkk ndax ah, ndax ndax juróom juróom benn boo àggee juróom-ñaar rek jeex na yokk yokk na yokk loolu rek lañ ci jublu ci tudd juróom-ñaar fukk bi waaye jublu ne daf leen di balul ñaar fukk yoon daf leen di wax rek dana leen a ba yàlla jéggal leen fekk yàlla dana na mu ñaan leen yàlla du leen baal de zaalika loolu seen ndax yàlla bay leen a baal bi annahum ci naka ñoom kafaru bi billahi wa rasulihi lu tax yàlla bañ leen a baal nag mooy ne ñoom dañoo fendoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weddi yàlla de wallaahu yàlla laa yahdi du mu jubal alxawma nit ña alfaasiq bi dañu demay gën topp yàlla de yàlla nag boo ko seet sa yoonu kéefar topp sa yoonu naafeq yàlla daf seetaan rek yëpp la waxati dara dafa li bëgg rek waaye fay fay gaa ngi ñëw de fari xaddit na al muxallaf na way bukki ña ca Tabuk ñi nga xam bi nga xamee nag xare Tabuk ñëw na nag nit ñi diis diis lu bañ a dem bëri ba bu ko nga xam ne ñoom duñ demati ñu ne fare ne ñu desal ña bi ma xaar yéen cee yéekuwaay seen cey toog teg toog seen yaa rasulillahi ci gannaaw gi nag yonent de te mu ne naafeq yi ñu ngi bëggee parce que ndax génn ñu ànd ak yonent dem ca xare ba ba yonent demee ba génn nag ñu dal des ci gannaaw yonent ca dëkk ba ñoom di di di bëggee loolu de wakka riwoo ñu sib ñoom naafeq yooyu ani yaayu dugg ñu jihaata joomaan yi ci yi bëgg yoo génne seen bopp ngir bëgg yoo génne seen alal ngir jaar ci yoonu yàlla ñoom ñëpp nay nañ loolu bañ nañ loolu rëy nañ loolu itam de waxaalu ñu wax naa fekkee ñu ngay digal seen i morom laatan ci loolu bu leen génn ci tàngaay bi dafa tàng lool jamono boobu jamono bu tàng la ñu naan leen bu leen génn ci tàngaay bi bul waxal ya bul waxal yow yonent yàlla Muhammad ne yaa leen ne naaru jahannama safara jahannama surtout moo melokaanu naa ne <coughs> di dégg lim tàng tàng safara safara xalaat laa ko gën a tàng de waaye nag ñun mu ngi loolu de moo tax ñu ñemee toog bàyyi yonent mu dem ca guerre ba ca ba ak ñi àndal waaye ñoom ñu toog de dégg dégg loolu nag ñuy dëkk yàlla ne leen falyadhaku falyadhaku nañu reetaan qalilan reetaan mu ne aji néew ci àddina de mën naa fekk yooyu ne yaata yumbe rek ci àddina waaye lu tuuti la rek ndax bu àddina jeexee rek bu jeex de te àddina du kër ak sax àddina kër ak ëllëg rek mooy sax de mu ne yéen a ngi yaataay di fo ci àddina bi foo leen ba neex naan bu leen neexee ngeen fo waaye bu ngeen xamoon dëgg-dëgg mooy tuuti ngeen di tuuti ngeen di ree de ndax ree waaye bu ngeen xamoon xam ne tuuti ngeen di reere ndax àddina bi rek la te àddina lu mu yàgg-yàgg dafay jeex tàkk bon nag seen mbir yooyu yëpp yaa ngi si àddina bu jeexee rek mu jeex de wala yëpp waaye da ngeen jooy kasiiran jooy yu de ak yu bëri bés ba àllaaxira ñëwee de bu àllaaxira ñëwee nag moom da ngeen di jooyee jooyee jooy <coughs> wax bu nekk yéen a ngi jooy de dèjà ñun béy bu ma kàddu naa dana dina ko yëg si bu ngeen di xam ci ay bàkkaar ak yu yàlla ñoom ñëpp wala xëy ñooy ba nga xam ne dugg nañ ci seen kër yi mboole nag muy pay boo xam ne ñoom ñoo ko fàggu dem ci àddina bu ko defee nag foofu la foofu la reetaan wala foofu la ñàkk reetaan wala reetaan bi amee njëriñ de foofu la julli ñaa ngay ree di dégg ñoom it ñoom ngay jooy ak ci biir àllaaxira rek fa in rajaaka Allaahu ngeen delloo yàlla nag nga jógee ci xeexat te boobu ilaa taa'ifatin jëm ci kuréel minhum ci ñoom su la yàlla mayee nag nga dem xarit te ba ñëpp si ci jàmm ñëw ak say mbaam ñëw ak say mbaam <coughs> bu ko defee nag yéen yi nga xam ne demu ñoon ak naa fekk dañuy wéccu ñàkk dem nga ba nga xam ne màng mi yonent di indi ñoom duñ ci mos bu ko ñu daal di nag ñëw ci yonent ne ko booy génn ci rek pare nañ pour génn ànd ak yow de yàlla nekk dee doo te bu ko nangu de day la jaa ak alaaw dem dellu na yàlla ilaa taayifatin jëm ci kuréel minum ci ñoom fastaa na ko ñu diisu la dil xuruuji ngir ñu génn ànd ak yow jëm ca xeex ba waxul waxal law ñeel leen ne waxul waxal waxal ñeel leen ne lan tax ñu génn leen maa yaa ànd man abadan dafeet yéen dootu génn ànd man abadan wala su xaatilu xarit leen maa yi ànd ak man ak ak noon te dootu leen man de xale ñi samay noon de innakum naka yéen rek yi tànn ngeen bil aw wala maratin ci jël beneen yoon waxoo bu jékki leen rek maal xaalifiina xam ne fi nga xam ne ca xale yeeg jigéen yeeg màggat def rek yéen tamit ngeen tànnoon def ko man ba tey toog leen rek waaye du ngeen ànd dégg man ci xeex de wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan boogul ko wasal wàcc na ci Abdullah ibn Ubay Abdullah ibn Ubay dafa bi muy bëgg dee dafa yónni doomam na ko na dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko ne ko yonent may mbubbam ndax ñu saagee ko bu dee ba ko defee yonent jóg ne daf koy may mbubbam Omar ibn Khattab ne ko mukk naafeq bi nga xam ne moo ñu def nangam bés sàngam moo ñu def nangam bés sàngam moo ñu def nangam naafeq bi doo ko may mukk sa mbubb mu di ko sol de yonent nee na ba Omar mayuma ko ko dara dama ko ko may rek ndax keroog xare Badar bañ jàppee suma baay futti ko nangu ay yéreem moom moo ko moo dindi yéreem moo dindi yére jox ko ko mu sol de yéreem yooyu rek laa waaye bu ko jëriñ dara am ko defee ba dee mu yónni doomam ñëw doomam ñëw si yonent ne ko sama dee na di ñaan mu jullee ko yonent daal di pare jóg pour jullee ko Omar ibn Khattab daal di jóg ne ko mukk loolu moom jaar diggante mag yonent ak ne ko mukk doo ko jullee mukk yonent wax wax wax mu ne ko mukk bi moom lu mënti xew waaye moom doo ko jullee la koy dal di dal di ba yonent eh, doon na bëgg doon na bëgg a sori ci yoonam ngir jullee yi Abdoulaye ibn Ubay ba ko defee rek laay dal di wàcc laay ji wàcc na ko wala tusalli bul julli ala ahadin ci kenn minum si ñoom maata dee na benn naa fekk bu dee yow yonent bu jullee de wala tax mu ne bul taxawalaa xam ni sa xabroom ba de bu ko ziyaare bul ziyaare xabroom bu fekkee fu ñu suulee de bàyyi ko rek ak kéemaram de ndax lan ñoom naka ñoom ko ñu de waxu ñoom parce que ñoom ci dañu topp yàlla ndax naa fekk yi dañoo wéddi yàlla wéddi yonent ba pare dee ca ko wéddi yàlla bëgg ak yonent moo tax ku dee te deewoo ci pas-pasab lislaam kooku kéefar nga ci kéefar nga dee kéefar nag bu dee moom safara rek kéefar moom safara rek nga de moom ko defee nag yàlla di digal yonentam wala falaa too ko bu ngeen loola am waalu moom ay jur seen alal ju yi ñu am fees dell ba ci nit ñi mu ne xale ko ñu la yem loo de wa ak doom seen i góor seen doom yu góor yu bëri di yem du mu la jaaxal de innamaa yuriidullaahu naka dana nam yàlla an yu'azzibahum mu wala leen bihaa jooja ak doom yooya fi duniyaa ci àdduna wata sax day génn am soo may bakkan seen ka tuude woom ñoom woom ñoom woom ñoom kaafiruuna wéy wet yàlla de mu ne yonent yéefar yi ngay gis ak seen melokaanu àddina bu kawe yi yëpp seen alal yu bëri yi lu nekk ak seen doom yu bëri yi lu nekk rek am nañ ko ba mu doy ñoom ñoo ko xéemloo de ndax loolu yàlla daf leen ko jox rek ci la mbugal ma di gën a méttee naka lay nekkee mbugal fii ci àddina te alal la ak i doom alal la joo xam ne lu ci fekk lu tuuti tuuti rek yow dootoo nelaw sa doom bu ko dal rek yow dootoo nelaw amatoo amatoo saxuwaay ñuy dem sax ñoom ba yàgg ci xaru ci yu mel noonu rek su ko defee xalat yi lay doon ci ñoom ak ak njaboot bi mbugal doon ci ñoom ci àddina boo légee ci àllaaxira ci lay gën a dem ba nga xam ji ba xalat yi ñu toog rek gis dee ak yow seen bakkan ñu génn ñuy jàkkaarloo bu yooyu nga xam ne ñoo ci sonnoon lool ñu ñuy génn ci seen loxo te mënuñ ci dara loolu itam dara gënu ko métti de wa ida unzilat ilayhim suuratun aw saar an an an luy mbir tey mbir boo xam ne dafay digle an aminu gëm leen billaahi ci yàlla saar boo xam ne daf leen digal ne nañ gëm yàlla wa jaahidu jihaad leen maa rasuuli ànd ak yonentam saar boo xam ne dafay ñëw di la gëm yàlla di sant ngay jihaad ànd ak yonent bi bu boobaa yooyu xew stage bi nga gisu la bu ñu taw li waroon xaral ya bi mu ci ñoom de bu ko defee boo xamee ne alal ji ñëw na ko bëri bu ko defee santaane bu ko defee nag borom alal yu bëri yi daal di ñëw si yonent bi gàntu naan ko ñun daal nangam ak nangam di indi seeni lay ndax yonent bi jéggal leen ñu ànd ak ñoom ci xare bi waxaaru ñu wax ñoom ñooñu di gàntu zarna bahin ñu nëpp ñu nekk maal xaay dina ànd ak way jékki ñi de bàyyi ñu rek yow ñu toog bàyyi te bañ a ci xeet bi de radu tànn nañu beneen ñëpp nu bu ñu nekk ak maal xawaat yi fi ànd mooy des ña de ñoom ñooñu borom awet yooyu góor yu dëgër yooyu tànn nañ ñoom toog toog des des ak des ñi rek gannaaw yonent lu demee ni kii jigéen yeeg xale yeeg nit ñu màggat yeeg ñu ngeen tànn toog ak ñoom toog leen rek wa tuyaar te lankaañeef linkaañee falaa quluubihim fii qulubin wa hum laa yafqahuun dégg yàlla dafa linkaañ seen xol yi ba mënuñu dégg dara xamuñ dara xamuñ ne yonent yàlla li mu leen di wax foofu la bànneex nekk foofu la teraanga nekk nekk foofu la baax nekk ndax euh, yaa ngi koy def ngir topp yàlla yàlla moom ngay topp nag ngir def lim la sant yàlla moom am na lu nekk te nee na daf fay de laakine rasula lu fi nekk yonent bi moom wala di naag ñaaña amuñu gëm nañu maa wax na moom jaadu jaadu yi bi amwaalihim ci seen wa anfusihim ak bakkan seen de wa ulaayika ñu ñeel gaay la moom ñaan leen ay xayraat ak ay yiw ci àddina ak ëllëg ci àllaaxira de nga xam ne yonent ak sa ak saabaam ak nga xam ne gëm nañ ko yëpp mu ne ñooñu ñoom ay jiw rek ci la ñuy nekk rek moo tax euh, yu saa yu saaga oona yu saaga oona yi xëy waat boo demee loolu saaga oona daa mag rek saaga oona yooyu rek dañ leen di sant de njëkkalante leen yiw njëkkalante leen baax njëkkalante leen kawe boo demee ñu gëm yoonam ci loolu lañ nekk de ñeneen nag ñi nga xam ne nekkuñ ci loolu boo demee njëkkalante àddina xëccoo àddina te àddina bu wow bi xëccoo safara rek dañ koy xëccooyee de jaasi wala wala lawareer wala wala wala yooyu rek dañuy xëccoo àddina ñi nag ñoom xëccoo àddina dañ ko bàyyi yàlla ko moom ñoom dañuy dem ci yàlla bi xam ne mooy moom di mayal ko neex ñu sa ñu ñu ci moom yàlla mën na leen may loo xam ne may ko sax xéeba yi de ah dalaaw xaduna yàlla la woon yàlla leen ñun julli ñooñu jënnaati na ay tool te jiw yi yooyu dana daw ñu tax ca ca al anhaar yoon yi yërënt de xaal yi ne mi yooyu de fiyaa ca yooyu te yooyu la tool ak yooyu loolu al fawzu moom de texe al azimu raa ji màgg de loolu yàlla ñu leen di fayal moo leen di fayal aljanna al ay tool ay ay ay masaaga yoo xam ne bu ci gën a rek boo xool rek mu gën a ba nga xooloon boo xool rek mu gën a yëkkati ba nga xooloon moom loolu la jullit ñi yàlla ak yonent loolu la ñuy am ëllëg ci àllaaxira de ñeneen ñi ñeneen ñi nga xam ne nag gëmuñ ñoom bu teeg loolu la na bay gànti la bay gànti ñu la yi ca euh, nit màngaan yi araab yi te màngaan yi mooy nit ñi dëkk ci kaw ge rek ñooñ ñu yuure rek ñu nga digal law ñeer leen ñu bañ a génn waqaale te toog la ñu ne bu weddi ñi nga xam ne weddi nañu màngaan yaa ngi ñëw di ñaan yonent jéggal ñu ñu bañ a dem ci xare bi di indi seeni rey ba pare nag loolu doyul sax ñu daan dem rek toog fi tëddu ne dematul waqaale bu jékki alladiina ñaañu kale bu laawa dañu yàlla wa rasuulu ak yonentam de ñi nga xam ne ñoom weddi yàlla weddi ñun dañoo toog rek kenn kenn yoo nekk ci ne sa yu si xal naa jot xel ñi ne ñaaña kafaru a métti de ñi nga xam ne nag bañ nañ bañ a génn ànd ak yonent bañ a xar yi ci yoonu yàlla yàlla mu ne ñooñu danaa leen musal mbugal moo xam ne mbugal mu métti la de lay saal duwaa faay de di war woy lompoñ ña ni ki màggat ñi wala amul man daa du way feebar ña di ki ñu dumboo amee yeneen feebar yoo xam ne feebar yi sama ci ñoom wala alal la ñu leen ñaaña daa yi duna amuñu maa yu fekk na danañu dundule ko ci jihaat ci biir yàlla ñooñu xaraju na amuñ bàkkaat de ndax dañoo am ay ngànk de màggat ñeeg amuñoo ñu feebar ñeeg ñooñu amuñ dara lu dundule ci yoonu jihaat dana ñooñu bàkkaat bàkkaat amul ci ñoom de iraana saxoo ndem xewe nañu billaay si loolu waxtu boo xam ne des nañ ndax ngant yi moo leen tax a moo leen tax a des bu tere liñ mën nag ci lu baax di ko laayante seen biir seen diggante di def loolu ñooñu bu boobaa dara leen de maa la muxsinina déet di wëy déet di war wëy rafetal ña mais sëñ yoonu yoonu dàq leen de yoonu jàppanteeg ñoom ñi nga xam ne ñu ngi éwénal ñooñu moom amoo yoon boo xam nga leen di jàppante seen dugal de wallaahu yàlla raxam naa ñu jégal la mu ñeel ay xejjam waxee gun ak yërëm na mu leen de wala alal la ñu su sàggan war ñaaña idaa maa taw ko leen njukkat nañu la te tax mi la mu ngi nga waral leen te juróom ñaari nit la ñoon ci lan saar amuñ dara di dem te boog ñëwee ñu ñëw ci ne ko dañoo dimbale ñu may ñu luy war ngeen ànd ngeen dem sa xeex ne nga wax ne leen laa ajudu amuma maa ma ma leen warale bu ngeen bëggee dem bu ngeen bëgg ngeen toog <clears throat> te am na ko wax ne mooy diw ak diw yaa leen mu ne waral ma mu leen waral ba mu ko defee nu teewul ñu dëdd waaye du may gët dafay du dana mu yor minal minal demee ci ci bàkkaar ci de ronkoñ seen bët yi di sotteeku ronkoñ ndax ñàkk gi ñàkk amul yonent amul bu leen waral ba te mënuñoo dem sa xeex ba loolu indi leen jàqale ñoo xam ne dañ ko jooye jooye ba bëgga dee allah yi ñu ngi daamuñu ñoom maa ngi suquuna loolu danañu dimbale ko ci jihaat yi ndax métti du nañ lool amuñu lu ñu bokkee ci jihaad ji te mënuñoo dem loolu moo leen métti ba ñu ngay jooy de ba mu ko defee nag ñooñu ñi nga xam ne dañ koy def te ñoo ko tey ñooñu ñoom danañ jëfanteeg yàlla waaye ñi nga xam ne amul dara ëllëg dana gis ne yàlla wax na ne ñu ñu amoo ñoom benn yoon de bàyyi leen rek te dina leen waral nga nangul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 43 37 77 681 43 37 ou 76 505 13 39 76 505 13 39. Allah Allah Allah ya Allah Allah Allah Allah Allah. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah.